واقبل به يا هذا يا كريم وابل من بي يناجي ما يا قريب يا مجيب سل على الذي به تجيب واقبل به يا هذا يا كريم salaamaaleykum cher internet télévision EDB TV international euh, national ñu leen di ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne nag ku gis fi ma taxaw xam ne ñu ngi jannatu ah ñoo leen Touba daal di leen exil fi nga xamante ne moom mooy jannatu kër Serigne euh, Cheikh Béthio Thioune gis ngeen photo bi sama ginnaaw muy Serigne Cheikh Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou nga xamante ne Serigne Saliou euh, Cheikh Béthio Thioune ndamam la woon macha allah ndamu Serigne Saliou la woon macha allah moom tam mu daal di koy def li nga xamante ne moom mooy kilifa mat ko lool nag mat kilifa lool moom lool di ànd ak ki nga xamante moom mooy Serigne nekk si ay tànkam ba ni ko yàlla jëlee dañ koy ñaanal yàlla bu baax a ñu si barkeem ñu a nga xamante ah, préparation bi sama ginnaaw ci nii ñu nga fa ñu ngi koy préparé fi nga xamante moom mooy ginnaaw caméraman bi moom itam foofu am na géttu nag baa nga fa lépp a ngi fa bu ñu paree léegi rek ñu leen jëlal lépp incha allah daal leen koy tegal euh, lépp rek pour euh, seen télévision EDB euh, e TV national internationale ñu ngi daal di bàyyi sama caméraman mu daal di dugg moom itam xuus xool li nga xamante ne yépp moo fi nekk le temps ñu xool ñoo xamante ne dinañ leen tàllal suñu micro ñu daal di waxtaan ak ñun si li nga xamante ne moom mooy histoire u jannatu caméraman bu baaxee nga jëlal sama ginnaaw ndax photo bi amal na ma solo ayca comme ni ma leen ko waxee woon nee naa fi am solo muy waañ wi xam ne euh, fii la fi la ñuy defee lépp ndax fourne yaa ngi lépp a ngi fi te bu jour bu gi màggal gi commencé di ngeen gis li nga xamante ne moom mooy cin yi fiy tàkk bëri gu bu bëri ba tax na mu fekk koo xamante ne moom tam dafa bokk si organisation waañ bi dama koy bàyyi mu nuyoo téléspectateur EDB yi ñuy seetaan nga daal di présenté wu wax ñu tey lan lan nga yëg si bés bi waaw jërëjëfaat Serigne Saliou di sant bu baax di nuyu ñi ñëw ci waañ bi di leen siyaar bu baax a baax di kontaan lool ci ñëw gi ngeen fi ñëw di bég lool sax waaw ni leen waaw yëf yi de nii rek la tàmbali ngeen màggal gi waa nag ñu ngi ci waañu Serigne Khadim Ngom bu Serigne Saliou bu sëñ Béthio ndax mu war a waajal màggal gi ci ndigal li ko Serigne Béthio joxoon ci ndékki ndax day mel ni sëñ Béthio da woo fii ci këram gi ni ko dama bëgg nga jël nag yi te dem mu ne ko sëñ Béthio man li ma defal teraanga yi ma yor mën naa ko jënd sëñ Béthio gëdd ko du ko demal foofu ñu jox la fukki nag ak juróom nga yóbbu indi jël fukki nag yi ak juróom ñëw jël ko dugal ko fii ci kër gi jouru màggal jot mu togg ko def ko ay ndékki mu togg ci ñeent fukki mbana ci at boobu noonu sëñ Béthio daal di ñëw wax ni sëñ Béthio togg naa ko sëñ Béthio ñu ko dawal séddale ñu koy séddalee sëñ Béthio ñu ko suñ xaalis ma gis la kaa ñu waxtaan bi ñu waxtaanee sëñ Béthio daal ni ko est-ce que xam nga ni jour màggal nit ñi sax nga togg de togg benn jox leen ko naam da leen wara a bett jox leen ay koppar ngir sa ñam gooju ñu mën kaa lekk jox ko ci ndigal nag ndigal loolu année boobu jàll ñu teg 500 mbana ren ñu toog mil mbana. mille mille ngeen nar a togg fii si jannat. waaw mille mbana la ñuy togg fii ci jannatu léegi nag ci ndigal liñ ci amaat Serigne Saliou ndigal cuun mii du suñu xalifa jox ñu ci ndigal ndigal li ñu jox nag mooy sancaan yi ci wër ci biir Touba am na ñoo xam ne daam dañuy màggal te Sëriñ Touba woote ñëw leen fii ci sama dëkk bi ñu bàyyi leen jàppoon ñëpp ñëw dëkk si ñu ngi dëkk fii ci ginnaaw mel ni bisu màggal gi day dem ba day sooxe ci ñoom ndax léegi ndigal loolu ñu am ñu jël ay mbana du toll ci 400 mbana distribuer ko ci sancaan yi plus de 30 sancaan ci ndigal lu ñu suñ xaadim jox pour ñu mën a berne ñoom léegi xam ne 1000 mbana yi bu ñu ko bëggee tàllal fii ci pénc bi du fi xat te ñu yóbbu ko distribuer ko ci sancaan yooyu la ñu bën a fas yéene teg fii ci 600 mbana la ñuy teg fii ci pénc bi incha allah. ngay wax suñu mbokk yi nga xamantene ne ñoo nara joggé fele sa Touba ñëw fekk ci leen fi ci jannatu la nga leen di wax parce que euh, amna na ñoo xamante ne lañ sant ñi ñi sant jaw la nga leen di wax wa ni muy mel ni fi mom mu yefi paré pare li mbé ci waxon rek amul xëj ji amul sét day melni ni ñun képp ñu mom mom mom ñuko ñun ay élément ay outil lañ rek mbé mbeccoo ñuy digal ñuy def mel na ni buñ ci paré pour ñom la ñun buñu paré sax mëna na togué toogee ñom nañ ñoom ñun jallaw jallaw ju lañ bëgg waaw mii xumb ñuy bég ñun daal loolu ah di kontaan ci yéen nag bu baax a baax di waxaat jërëjëfati Serigne Saliou yàlla ngeen fi yàgg lool ñu màggal màggal goo xam ni oo oh, kenn dootu ko fàtte ngeen dem ba doon ay ay télé yi télé bég nañ lool jaa ngeen jëf waay jërë ngeen jëf. ay mu ngi noonu ñoo ko déggandoo amin yaa rabbi ndaxte euh, bërëb bu sell la ñu nekk mu ñaanañu ñaan googu nga xamante ne euh, gëm naa ne dina dal euh, macha allah ndaxte kenn du Serigne Saliou mi nga xamante ne moom la Serigne Cheikh Béthio Thioune di ndamoo tax na dañuy daal di jàllaat nee naa leen pareeguma dinañ dem jël leen li nga ne moom mooy gétt fa nekk fële sama ginnaaw su ma paree ne daal jox suñu mag ñi nga xamante ne ñoo fi toog ñoom itam ndax am nañ si ay kàddu yoo xamante ne war nañ ko si mën a mën a saani ndaxte loo gis lu nekk rek mag desee baax bàyyi mu présenté ak ak EDB TV su ko defee rek nga di ñu wax sa si bés bi ak waajtaayu màggal bi mag di wax a ko waa jannat parce que saa bu màggal ñëwee rek euh, chaque màggal bu nekk rek il faut mu am ci tool la ko ndax da ngeen teg ay téeméeri cin ñaar téeméeri cin ba ngeen ci téeméeri cin chaque màggal bu nekk rek ak li ciy tool la loolu parce que fu la wala sëñ bi si boppam moom moo bëgg chaque année rek loolu jëm amul tànk ginnaaw moom tànk kanam la yor moom loo def ren rek bu déwénee da ngay def lu ko noonu la yëfi tëddee ba tax na ñun ñu ngi ci wattaay mel na ni buñ doon wax ni daal jekku nañ ko ren moom jekku nañ ko jekku doy waar doy waar waaw. gis naa loolu ndax ma fi gis nag li ma gis nii defe naa du nagu réew mi ah, am na fi nagu réew mais nagu bitim réew gis naa ko fi ndax li nga xamante ne moom mooy photo Serigne Cheikh Béthio Thioune bañ teg daal di jël ñaari nag teg ko si côté am loolu lan mooy lan lay signifié. no. sekkeen yeeg jawe ñi lañ kontaan. non ren wax ren at at mi sant Fall at at sant Diop ren moom tey moom ñëpp dëriñ moo tax ren daal ñun wax ni moom daal ndekki jaratu ren ndax gis nga baas bi baas bi pour waaye pour ndekki la kon maa ngi la koy annoncé wale ren moom na nga xam ni moom fu waay ne moom laa ren lii bu ko tànnee woo nañu ñëpp woo nañu ñëpp. E eh, national international. moom moom daal ñoom ñoo ngi wax cette année.